barakaatu ñu ngi nuyu ñëpp ku ci nekk sa tur ak sa sant di leen ziar di leen màggal di leen ndamoo di leen tiitaroo di leen béggee bu wér ku xeeb sa nguur folleeku ku doyloo li la yàlla may dolleeku ku sant li la yàlla may dolleeku ku xeeb sa nguur folleeku ku sant li la yàlla may dolleeku waaw ñun de ay rastaman lañ ay fruits la ñuy añee <laughs> fruits ak jus la ñuy añee quoi ay ci kaay la añ ay fruits la ñuy ay rastaman lañ quoi duñ lekk yàpp rastaman vibration salaas yaay naan ci jus bi duñ lekk yàpp duñ lekk duñ lekk ay révolutionnaire lañ révolutionnaire da koy nuru di leen sant nag di leen ziar révolutionnaire du bëgg àdduna révolutionnaire du bëgg àdduna révolutionnaire day doon bañkat révolutionnaire day focus révolutionnaire day gumba révolutionnaire day tëx révolutionnaire gaynde la du dégg jat ku amul qualité yi doo révolutionnaire ku amul qualité yi doo révolutionnaire donc il faut ñu ngeen xam ni dañu nekk ci xeex révolutionnaire du gi yëgul tàccu régul révolutionnaire yëgul yuuxu révolutionnaire faalewul saaga révolutionnaire des focus révolutionnaire day focus il faut nous nous doon ay révolutionnaire parce que pour révolutionner pour changer de paradigme il faut que nous nous concentrions wu ci lu ñuy ak faut pas ku nous manipuler manipulions. je parle pas de moi <laughs> parce que je sais que je peux trembler je peux faire trembler une république nalaw man quoi j'ai les capacités j'ai ces capacités là c'est-à-dire mouna naa Sénégal bu au carrément ma taxawee ni la def nii te fu ma nalaw parce que dama nekkul ci état d'esprit détaillant fu ma boum, vum damay rombo. maay koo xam ni wax du wax dara di regretter bu mu ko nammee def yàlla na ma safara jël depuis que je parle depuis que vous avez entendu moo laa parler depuis la nuit des temps musu leen dégg lu ma wax ñëw taxawaat di dellu ginnaaw wala non lii waxu wa ko wala lii dama koy regretter du man du man je suis un révolutionnaire un très grand révolutionnaire qui n'a pas qui n'a peur de rien qui n'a peur de rien du tout il faut que vous ngeen jang doon révolutionnaire lu leen di yëngal baña yombu yomb lu di bougeloo bañ a yomb focus encore une fois parce que chaque jour vous avez affaire concentrez-vous ici te ngeen baye détails concentrez-vous ici te ngeen baye détails concentrez-vous ici encore une fois te ngeen baye détails je vous le demande concentrez-vous ici te un bàyyi détail góor jigéen Ma maa sama live y aura des gens qui vont wax man man di wax je continue pour ma je les élimine et j'avance donc concentrez-vous ici yéen laay waxal stay focus doon len ay gaynde yu déggul jat am len fulla ci li ngeen nekk am len fayda ci li ngeen nek. nit bi gu bukki bu gisee gaynde yàpp ko gaynde bukki bu gisee gaynde yàpp ko c'est parce que gaynde gi day day soox bukki bu gisee gaynde yàpp ko c'est que gaynde gi day soox dañu nekk di xeex ñu ñuy xeexal dañoo am seeni pexe ñoom it boo leen yaakaaree ne da di xeex ci gént da ngeen di nax seen bopp même gént da ngay xeex sax di gaañu ñun dañuy xeex c'est pas du ay gént ñu ñuy xeexal dañuy yor dañ leen di laal ñi ngi leen di écraser ñi ngi leen di rey ñi ngi leen di sonn nañ ñi ngi yuuxu benn gémmiñ lañ am mooy dugg ci nday rek lañ am parce que on les a eu dañ leen a noq metti amul ñu leneen lu dul def lu dul donc am nañ leen buñ ñu waxul woon buñ bu fekkoon ñom amuñu réaction ñun dañuy naan est-ce que ñun li ñuy wax mi ngi leen di yegg mais liñ fekk ñu ngi leen di news ñuus yi metti ñuy saw seeni seeni tubéy lool motax tax ñuy ñëw ñoom tamit di def ay réaction ci ci live yi di yu ko joy donc dañuy sant gàcce ngalaama alhamdulilah ni xex bi mi ngi saf mi ngi saf mi ngi yëngu motax dañuy xeb di dolli yokk cere dolli ñeex tant que ñi ngi gis ñoom seeni réaction yuy wane ni ñi ngi jooy ñi ngi jooyee ko jooytu ñun dañuy sant yàlla donc hey sama gars man dem naa de te xaaruma leen dama focus ci xeex bii ni xeex bii doomu aadama mënuma ci arrêté deux mille vingt quatre kese wax naa ko Macky Sall wax naa ko njabootam ne leen xaw ma koo leen di téye xaw ma koo leen di arrêté ci ay wax xaw ma ko leen di arrêté ci ay loxo xaw ma ko leen di arrêté ci ay mystique mais man rëcc naa leen ci saayir ak ci baatin deux mille vingt quatre ba buntu pale deux mille vingt quatre ba buntu pale ñu loqati Macky sàll noq ci biti jël ku ñëpp choisir teg ko fa dox dans le jàmm et le salaam am suñu jàmm ak salaam xeex ko donc il faut ngeen concentré wu man li may def maa ngi koy def li may wax maa ngi koy wax est-ce que mës ngeen a gis ma wax dara yéen ngeen nekk ci ay débat ratatati fële ma ñëw di leen wuyu déedéet du ma tere saa yu ma waree wax damay ñëw wax kon war ngeen xam ni waa jii nii kii ku déterminé wu la kii ku déterminé wu la du ma wax dara di fa ñëwaat di werante yéen laay bàyyi ngeen di werante de ma dem tëddi nalaw njaax yow lekk ba suur naan ba màndi di li may wax dolli ko donc yéen laay gis ci ginnaaw te neexuma ngeen di werante fële ñu am ñu leen di tardeloo dama bëgg ngeen focus man maa ngi ñaf-ñafal maa ngi ñuus seen maam bu baax a baax a baax a baax te man xam naa ni maa ngi ñuus seen maam mi ngi saf-sàpp yéen ñi nekk ci ginnaaw di werante fële ci man li ma wax ngeen di werante man santuma leen ko yónniwuma leen yéen fa bàyyi sen bop man mangi ci kanam mangi focus ci kanam sama combat c'est Macky Sall ak i ñoñam ak gangoram dina len xex jusqu'à la dernière centime jusqu'à ma dernière dernière énergie je ménagerai aucun effort pour éliminer le gouvernement de Macky Sall et ses sbires je me donnerai à fond bec et ongle jusqu'à la dernière goutte de sang pour jëlee fi nguuru Macky Sall moom mooy sama komba jëlee fi nguuru Macky Sall loolu mooy sama komba donc yéen ñii di nekk ci ginnaaw am jot daan da ngeen di waxal ñenn ñi ñenn ñi di di jouer ci seeni conscience ngeen toog fa naan da ngeen di waxal Mollah Morgun man santuma leen ko de.

man maay xéxal sama te xam ni may donc de mon côté bu ma xeexal bokk naa ci dàq xeex Ali Yacine du arrière du reculer te li ma wax répéter dox arrière amul pardon amul je regrette mon combat n'a pas de pardon ni je regrette et vous n'entendrez jamais au plus grand jamais dans ce combat là moo laa du wax dara naa ay je regrette wala maa ngi jéggalu ju ma jéggalu kenn kenn kenn amul kenn ku may jéggalu j'ai pas de compte à rendre fël jàll laay def vum jàll vum bu ma fa bàyyee nag dégâts collatéraux yeeg dégâts yi ngeen toog fa di weranteeg yooyu yéen yéen la de man chaque jour tsunami vum mu jàll Macky Sall rek ba ci buntu pala ma taxaw ak moom nii face to face Yang may xol mu nan wa ma gis ñu ko combat mortel ba fu mu yam neex me sama objectif fofu la mise sama je faut lay xolé le combat bi yombul kon man amul je m'excuse amul je regrette amul pardon mon combat n'a pas ces, ces trois mots-là. Jamais je dirai je regrette. Jamais je dirai euh, euh, je, retire mes mots. Jamais je dirai pardon. Jamais. Ba que ci put paaka sax du ma ne pardon ni, ni, ni. tu ma ne pardon Ni. du ma ne je regrette Ni. du ma que je retire je suis très déterminé très très très déterminé donc soyez encore une fois au rendez-vous de l'histoire. Ne vous laissez pas divertir. Soyez-vous au rendez-vous de l'histoire. mbir maa ngi ñew waajal leen ko mbir combat ba ngi ñew soyez déterminés ñoom lu ñuy def ñu ngi koy def ba léegi bu ñëpp fu de ñoom ñu ngi ci luñ nekk bàyyiwuñ ko donc du ñun ñooy bàyyi li ñuy def di topp ñoom luñ bëgg kilifa gi nee na le 30 rassemblement la na Sénégal yëpp génn daj ay millions ci mbedd mi le 31 nee na nañu dóor casserole yi nañu fëgg casserole yi ba muy riir dégluwuñu kenn benn biddo xaram benn nit munul taxaw fii nañu bu leen fëgg te duñ fëgg kilifa gi jibal na kàddu gi nee fëgglen fëgg leen kasoro yi li ba muy riir vum vum vum vum vum na tàkk na boy na tàng jër ñu wan leen ni ñun on avec la république on n'est pas avec des lobbies maçonniques des lobbies maraboutiques des de góor jigéen on n'est pas On est pour la République. Quand la République a besoin, dañuy avons ne la ay ay fu far dañuy teg ne ay cosaan dañuy de ne la c'est la République qui demande c'est la République qui a besoin c'est la République qui nous appelle quand la République nous appelle nous fu nous on est avec la République duñ déglu kenn ku taxaw suñu yanu la la république on va libérer ce peuple on va libérer ce pays la république Moi, je la bëgg il faut que ces médias là passent leur temps à parler de moi <laughs> il faut que ces médias-là passent leur temps à parler de moi bu me me détourner de l'essentiel ngir ne wax pas ba ne wax pas. ba pas bés boo les bu tout pas amal détails ngol ngol euh, euh, sur la décision. a fait une émission ce matin spécialement là fuck you ngol ngol et j'avance j'ai pas ton temps mon énergie, c'est Macky Sall. Fuck you, Tal Ngol Fuck your father. Fuck your mother. Fuck you. Get the fuck out of here. Moi, j'ai pas de temps à perdre pour un Tal Ngol Qu'il aille se faire foutre. Qu'il aille se faire enculer sa race. On est dans le combat, man. Stay focused dans le combat, man. On est en guerre. On est en mission, man. amul ay a la man. man. Bon, fucking mi ngi ci télé bi motherfucker mi ngi ci radio I give a fuck on est dans le combat man nos frères sont morts mon fond frère Macky Sall a tué plus de 14 sénégalais man daf leen dóor ay balle de, de dël ñuy Man a été assassiné Fulbert Sambou a été assassiné DJ Badi a été assassiné nos frères sont en prison arbitrairement arrêté arbitrairement. Pape allait à l'hôpital depuis des, jours. Dans un chaos médical. Eux, ils se soignent pas dans nos hôpitaux. Man, stay focused, man. Hey, stay focused, guys. On n'est pas à la diversion. n'est ñu ci t'y góor man ku taxaw sañu kaw dañ kanam dañ lay feul dal on est en guerre on est en mission kenn du fi joytu ay xoosu xoos kenn du fi joy ay gom dafa am ñu ñu rey dafa am ñu dé. fu ñuy reyee nit ngay joy xoos xoos vous pensez que Mola doit rester là à dire que Pal Pal Ngongol ou Debo Ngongol a parlé de moi foog colère. fu nit di dé ngay joy xoos xoos fuñuy ray 14 personnes mort dina fi genn nan ay amna kumay wax ci télé bi man bu ma waxee loolu yéen yéen war ma nag même mola yow dañuy yapp ay dom adam di dé ñu ray ay 14 mort Ray François Mankabu. Ray Idrissa Goudiaby Ray Fulbert Sambu. Ray Didier Badji tëj plus de 25 parents ci kasso bi ay góor jigéen ay wat bang na Mollah am na caga bu nekk ci benn rajo Mollah am na caga bu nekk ci benn télé moola mais parce que yéen da ngeen fàtte une patrie compose de morts qui la fondent et de vivants qui la ay doomu aadama yi dee pour ñun ñu taxaw fii ngeen bëgg a nekk ci ay data ay góor jigéen foog taal ngol-ngol wala damba mbol-bol wala bun gol-gol we don't give a fuck wu ñu leen faale wu ñu leen amuñu seen jot. on a une guerre un tenue militaire yor un armement di dem de rien ak pour laver l'affront ñi nga xam ne dañ leen dañ leen C'est un direct du fendi dafa am ci xare bu ñu man personne ne peut me distraire personne personne. J'ai l'esprit d'un militaire. Je pleure pas devant les morts. Que de ma gagne Que de ma xos Que de ma m'goum Du dox ci de nan de ma am Du di dox ci kaw nan dé ma am Moi, j'ai pas peur de rien rien du tout Mola n'a peur de rien du tout bon vous dund nag bëgg avant de un xam ne ba certificat de décès laa depuis des années de dox depuis des années depuis Sénégal on le disait partout depuis Kirgi. c'est un certificat de décès lañ Dundu la musul Dundu, musuma genn di dox di calculer doomu adama maa ngi ci sama xex et ils savent que maa ngi ci sama xex ils savent que ce gars-là est super déterminé ils savent que ce gars-là wul xex bi bakkanam la ci tek ndax dama fekk samay morom ñu ray

buntu pale de la république ne leen leen déglu lu ma leen waxoon wax naa leen ku may arrêté ku may rey juddugut nekkul ci kaw suuf du ci saayir du ci baatin kon nag soyez encore une fois ngeen taxaw ngeen respecter nos morts ngeen respecter nos blessés ngeen respecter ñi nekk ci kaso yi ngeen bàyyi di traîner partout di nekk ci ay détails man nee naa leen buleen ma waxal allez défendre les morts allez défendre les victimes allez défendre ñi ñu assassiné allez défendre ñi tëj ci kaso yi ne me défendez pas soxlawuma ko ne me défendez pas ku ma défendre yaa ngi may tooñ santuma leen ko ku ma défendre ya may togn santuma len ko rien ne m'ébranle rien dans ce monde ne m'ébranle allez défendre ñi nga xamni tay tey ñu défendre sen bop moy ñi nek ci kasso yi dañ japp len tëj len ci kasso yi aller défendre ñi nga xamni dañ leena ray tay sul len sans autopsie ñooñu ñoo soxla défense man ma ngi dundu dara daluma du ma jooytu xoos-xoos du ma jooytu metti du ma jooytu dam du je ne suis pas du genre buy pleurnicher chaque jour ngeen gis doomu adama yu ñi menacer ñu jël ay ñu leen menacer yépp seen numéro génné ko tapet yépp nga koy def ak nit yépp nga def même buñ dul tapet sax ñi ngi koy def parce que ngeen gis man ma génné ay numéro na ñi ñoo menacer menacé il faut ngeen di xeex tamit di xam ki ngeen amal affaire

mus ngeen ko dégg <laughs> musu leen ko dégg ci man te ku ñu menacé nga génnee numéro de kii dafay menacé man sama numéro man maa koy joxe 77 641 53 24 mooy sama whatsapp Sénégal yëpp am nañ ko yàgg naa ko joxe bu 17 million doon ma menacé du ma génn ne leen niñ may menacé kenn yëngulu ma ci 17 millions buñ boolowoon di mu menacé du ma génn mukk di jooy du ma génn mukk di jooytu duma genre boobu <laughs> man militaire laa man militaire laa dama porter les drapeaux du senegal damay dama porter les drapeaux du senegal te dama ne du du ma daanu drapeau bi ci kanam bu ma defendre bu leen ma waxal fenn man maay défendre sama bopp te man dama fàtte sama bopp man maay défendre la patrie man tiituma ragaluma dawuma gàddaayuma bu àdduna doon wax suba ngoon ngir yàlla ci moolaa bu leen ko sax yëgal seen yaram dem leen ne leen moolaa nee na foog yu lijjantiwu leen dara munu ko ma numéro bi àddunaa ko xam man du ma numéro ñuy nëbb numéro 77 641 53 24 xanaa ku may doog a déglu léegi numéro bi dama ko yàgg joxe jàpp leen ni am ngeen jàmbaar jàpp ngeen jàpp leen ni am ngeen ko am fit barke alxuraan jàpp leen ni am ngeen koo xam ne kenn mënu ko détourné jàpp leen ni am ngeen koo xam ne kenn mënu ko menacé ba mu yëngatu ba mu saf ko jàpp leen am nga koo xam ne ku dëgër bopp ku wowle ku wowle koo xam ni lum la wax du ci regretter fifteen du ci dindi fifteen virgule du ko ci effacé kon nag man moom bàyyi leen ma quoi bu leen ma défendre bu leen toog fenn naan da ngeen may défendre man dama koy régler man dama koy regle am naa fitam am naa mën-mënam ña ko doon ñii ci doon jéem a menacé sax ñoo daw depuis 2010 lañ may menacé man Sénégal te mosuma yëngutu maa ngi nekk ci li ma ne depuis 2010 je suis très déterminé wallahi boo leen xamoon à quel point je suis déterminé boo leen xamoon nu ma dëgëree bopp boo leen xamoon nu ma wowlee boo leen xamoon ni ma amee fit boo leen déggee kuy wax Mollah da ngeen ko fay bàyyi ne kii moom dara safu ko dem leen nee na ku ko défendre yaa ko tooñ donc man bu leen ma calculer soxloo ma sax ngeen nekk fen naan da ngeen fay jéem a défendre non Mollah wuy moom nekkul Pastef man ñëpp xam ne ni nekkuma Pastef am jot nag baaxut te am ngeen jot lool am jot bi ngeen am jot mooy toog naan loo xam ne laa wax na ko adduna yi niir yi sax dañ koy raconté que Mollah bokkul Pastef c'est un rappeur c'est un activiste ngeen toog fenn di débat ah oui mais laa bokkul Pastef mais Mollah yéen da ngeen di jàpp ni da ngeen di xeex seeni moroom ngeen di xeexal ñoom dañoo toog ci pouvoir douze ans di lekk ba suur di naan ba màndi di time caga ji yor laar foog si seen xaalis jël ko ñooñu dañoo toog mu nooy yéen ngeen bëgg leen fa jële loo yëngu loo leen yëngutu c'est normal ñoom tam ñu jóg saaga leen ñoom fauteuil bi nii lañ bëgg rek toog buñ déggee dara même bu bokkul seen kan sax dañ koy jël ne ko kii yéen la faral kii yéen la faral kii yéen la nangam ngeen ah non faral ci ñun de faral ci ñun de maa leen ko sant <laughs> mais c'est normal mais chaise am boobu yaa ko ko fa toog loo mu tabax ci ay kër xool ñoom Moustapha boy booy yoruñu woon dara xool ñeneen ñoom ñoom seen ministre yoruñu woon dara Mame Mbaye Niang ba muy ñëw fële ne ci ca euh, am euh, kii ba lu mu tuddati assemblée nationale mais Mame Mbaye Niang mbub mi nii la meloon mbub mu weex mi nii la meloon mu taxaw ci giri yi Mame Mbaye Niang tey ville lu mu yor ci immeuble kenn xamul lu mu day Mame Mbaye Niang toje na vingt neuf milliards Mame Mbaye Niang tey kooku kooku bu mu ñëw Mame Mbaye Niang bu mu ñëw yoruloon oto tey Mame Mbaye yor na ay tey oto oto ngeen bëgg fa jëlee Mame Mbaye foog ni yéen ñooñu boo leen fa bëggee jëlee day yomb ci yéen mais non du yomb ci yéen gars yi munul yomb ci yéen xeex la xeex bu tar la xeex bu metti la

te xaaruma leen xeex leen te bàyyi ma ak sama xeex man dinaa ko xeex santuma leen ngeen défendre ma défendre leen ki ñuy sosal Ousmane Sonko défendre leen ki ñuy jéem a taqal te mu nawle woo ak Macky sàll muy Ousmane Sonko man bu leen ma défendre bu leen ma calculer romb leen ma dem romb leen ma énergie bi ngeen di perte ci man toog fenn naa wéy non moo laa lii moom la engagé lii ma loolu santuma leen ko dem leen défendre Ousmane Sonko bi ñuy sosal dem leen défendre Ousmane Sonko bii ñu bëgg a éliminer leen défendre Ousmane Sonko bi ñuy jéem a yàqal dem leen défendre Ousmane Sonko man ki may yàqal juddagul ki may du dogul fi ba 2024 dama fi nek fi ba 2024 dama fi nek di wax di xex di xare di tay sama bak tay la sama bakkan di ko jaayante kenn mënu ma arrêté no ma gëna mystique may gëna siw noo gën a wax ci man may gën a siw xale may coow lañ ma bindee te dama ko rab moo hey yow mii di wax bin binde boo xamoon ni man xale may coow lañ ma bindee yow mii di wax bin binde boo noppee rek ma ma ma jóge fi tant yaa ngi wax dama duma fi jóge moo tax foo leen noppee ma fëgg ngeen wax ci man parce que man da war a wax ci man

yërëm leen seen bopp maa xam jàllo xeex bi ngeen war a def bu leen per seen énergie ci man maaxam xam jàllo waxoon naa leen ni ci ay pexem la ne ci ay soxlay Macky Sall lay dox mi ngi koy def maaxam xam jàllo woowul ki nga xam ni mooy gabi maaxam xam jàllo woowul gabi Maham Diallo woowul ma caam entendre ko Maham Diallo woowul Dior Diagne entendre ko Maham Diallo kii nga xam ni mooy Amadou Mamour Diallo deful bureau doyen des juges dix minutes Il n'a pas été interrogé. C'est des mensonges. Bon vous nous nous nu mu dafa ñëw toog nuyu Maham Diallo Maham waaw bon affaire gars yi dañ lay wax fii naan yow dossier Adji Sarr bi mu ne noon j'ai absolument rien à voir du dossier de Adji Sarr awma ak moom affaire man xaw ma Adji Sarr dañu may sosal di ma jéem a fenal lijjintuma Adji Sarr xaw ma suite boote dew ma suite boote diwuma fa saafawu ma dem leen laaj ko ki fa demoon doyen des juges nag ah, ah, ah bon mu ne waaw kay j'ai absolument rien à foutre de suite boote de Adji Sarr mu ne ko ah yow yor na benn audio bu ñu la tagal fii boo xam ne audio bi nee nañ yow yaay wax ak Mamour Diallo mu ne waaw ñoom ñoo amoon benn soxla xalaat ma woo ma pour ma jàppale leen loolu moo ma boole Adji Sarr te boobu laa ko njëkk gis boobu laa ko mujjee dañoo amoon benn soxla woo ma buñ ma wooyee ne ma ñoom dañ bugg ku leen dimbale comme man ma jàppee leen sama njaboot te yàgg dégg naa ñuy wax waxu aji saar ay Adji Sarr Adji Sarr benn fii nekk en détresse ñu woo ma pour ndimbal ma ñëw dimbale leen dem sama yoon. daa des juges ne ko ok amul problème demal ñibbi defu fa dix minutes interrogé wu ko nii donc Maham Diallo naa pas été interrogé comme ñu ko comme niñ koy prétendre ci média yi doo dëggal Maham Diallo interrogé euh, euh, ki kii nga xam ne mooy Mamour interrogé wu ko defu fa dix minutes nu mu toogee noonu la la raxasee loxoom ba mu set dem yoona comme ça léegi ñoom ñuy boucler seen enquête

palais de justice bi ñeneen ñii di ñëw waa Sonko yi dañ leen di filtrer duñ fa mat kat nitu Adji Sarr yi ñoo fay fees dell ak nitu Macky Sall yi ñu def ko benn projet public boo xam ni comme assemblée nationale la naramel A Sarr bu ñëwee moma moma japp ma ma s'il vous plaît s'il vous plaît calmez-vous calmez-vous l'assistance s'il vous plaît c'est comme comme assemblée nationale ñom ñoy duggal fa nit yi ñu toroxal fa Ousmane Sonko toroxal toroxal du monde bi parce que bu boba Pasteur, duñ fa dugg mu fajar sax duñ fa dugg nye jije yep ña fay toog yep waa magistrat yi fay toog yëpp juge yi waa waa Macky Sall lañ population yi bu ñuy nangu ñu dugg ñooñu ñëpp waa APR lañ ay souteneur Adji Sarr yi ñu préparé ñoom ñoo war a fees ndey foofu ba mu fees dell ñu toog ci chaise yëpp fees fa dell waa Pastef bu ñu jàpp ni kii Pastefien la rek du dugg non salle bi fees na salle bi fees na é dugal ñeneen ba ñu fees dell ñoom ñu fees fa dell toog tribunal boo xam ne ñoom ñoo fay toog lu Adji Sarr ñu yuuxu faut waaw foofu yëpp toj Wa no non kii bon non kii moo nangam di ko ça ay gars tribunal oh calmez-vous calmez-vous ou bien on on vide on vide la salle calmez-vous calmez-vous ñoom seen biir Ousmane Sonko toog fa moom ak ay ay ay ay avocat bu Ousmane Sonko waxee ba pare ñu yuuxu wuu wuu violeur violeur violeur eh, eh, nañ vidé salle bi nañ vidé salle bi eh, nañ nañ wala ñu ñu jóg juge bi jóg ne ok nañ ko nañ aj affaire en attendant dem dama man dama leen di wax lu ñu nar <laughs> saa yu ma ñëwee wax lu ñu nar rek am doomu aadama yi génn non loolu moom c'est pas possible non non ça va te bu affaire bi ñëwee am ñu retourné waat encore non moo la baal ñu lool moo loolu moom dafa yàgg loolu dama bëgg ngeen man ak yéen distance boobu ngeen war ko di ruus suba ngoon moo laa baal ñu moo laa da leen lu aviser lu ngeen war ci bàyyi xel ngeen war a xool ni ñuy contourner loolu te ngeen bàyyi bu ñu leen waxee dara rek non voilà loolu moom ma après suba ngeen ñëw loolu am ngeen ñëwaat rusaat taxawaat sama kanam doo leen dee ci gàcce eh, moolaa baal ñu de moolaa yéen a ngi ñuy waxoon am na eh, moolaa man bugguma li may wax dool di am chaque jour parce que dama nek diko xex sama sañ-sañ moy limay wax bëgguma muy am dama bëgg muy échouer pour au moins yéen ngeen fan loo parce que ñom liñu seeni pexe rek la leen di indil man créé wu ma du film yéné taxaw bañ ko mais ñom loolu lañ préparé dama né procès bobu ñom dañ ko préparé buñ démé procès bobu yéen procès public lay doon jël ab rek a fay nek ñoo fay bu Adji Vous waxe ñu tatchu yuuxu bu Ousmane soxo waxe ñu ko sag ko ne violeur des fois ñu ça. procès bi gars dem ne dans 30 minutes da nangam gaay genn nangam bu ñu policiers dañ tay ñuy filtrer ñi fay dugg ak ñu calmez-vous on si vous si vous vous calmez pas on va évacuer la salle calmez-vous on évacue la salle fekk vous Adji Sarr ñi nous fa muy Ousmane Sonko di wax neex ay assistance bi di di bu Ousmane Sonko ñu ko ko violeur ñu bi muy continuer ay jour jour jour ñu nous ñom lañ c'est à la population de se préparer pour ñu baña yegg fofu mais étape ñing koy def ku bëggul dé ci gàcce do fekk procès bobu wala nga rayante ba procès bobu du fi am mais procès bobu bu dee dafa nara am day am manam buñ ko sétané buñ ko sétané day am parce que ñom mom lañ décider bo len xolé ni procédure bi doxé ba légui mais lan moo tax ñoom mais nan ngay dégloo docteur Alfousseynou Gaye te doo déglu Gabi Sow nan nga mën a dégloo docteur Alfousseynou gay te dégluwoo Gabi Sow te est-ce que xam ngeen Alfousseynou gay bu mu fa demee moom yor na audio Alfousseynou Gaye génn na audio jox ko Maham Diallo comme nu ko MC Niass defee Maham Diallo déglu na audio bi kan moo ko doon woo laaj leen ma ay audio la benn audio bi Mamour Diallo moo woo docteur Alfousseynou Gaye di ko jéem a corrompre mu jël loolu jox maaxam maaxam déglu mu jëlaat beneen ojo boo xam ni kii di Gabi Gabi Sow moo doon woo docteur Alfousseynou Gaye di ko jéem a convaincre pour pour mu changer certificat médical bi mu enregistré ko jël ko jox ko. juge xam Diallo te audio yooyu dinañ leen ko génneel ndax audio yi ñu ngi fi dingeen jot ci audio yooyu yéen ngeen déglu Maham Diallo bi muy woo docteur Alfousseynou Gaye di ko jéem a fay jox xaalis pour mu changer certificat médical bi di ngeen déglu audio bi nga xam ne kii nga xam ne mooy Gabi Sow moo woo docteur Alpha Séné Gueye boo xam ne mi ngi ci juge bi mais ba léegi woowuñu ñooñu interroger ñu ñooñu mais ñun buñ nan la ñu mën a seetaane ñi nga xam ne dañ ci taq rip Mamour Diallo ba léegi taxawu fa trente minutes dem yoonam raxas ci loxoom dem yoonam nii maanaam interroger wuñ ko Gabi même chose Dior Diagne même chose Mamour Ba Thiam Mathiam même chose et cetera léegi ñun ñun seetaan ñàkk fayda ñàkk fulla seetaan ñi jël Ousmane Sonko dangi-dange yóbbu si si teg ñëw dugal seen saal feesal fa seen nit nan dañ koy juger pour toroxal ko ci ay jugement de valeur ñun ñoo war a am suñu fullaay bopp wax nañ leen ba sonn fulla fulla fulla fullaay jaay da xaar mbaa ma ñam jeexal ko fulla mooy jaay da xaar mbaa ñam jeexal ko te loolu mooy première étape étape bi mooy def benn enquête boo xam ni ñoom preuve yi leen tegal yëpp faale wuñ ko ñu war a def benn non-lieu ñu jël yóbbu justice ne kaa leen jugé defar seen film foofu ñëw def ko mu inéligible taqal ko ok violon booy bi

notewaat leen lu ma leen di wax ma ne ñoom seen objectif mooy taqal Ousmane Sonko ba du dem ci élection yi ñoom loolu lañ décidé te maa xam jàllo buñ ko ko joxee lenn rek la ragaloon du sénégalais de affaire mystique parce que ñoom dañoo gëm mystique te ñoom jàpp nañ ni waajal nañ ko mystiquement ba ñu demee Inde maa njëkk ñëw ne leen ñii dem nañ Inde di fa wuti seeni xërëm pour mun a affronter Ousmane Sonko def nañ loolu ba suñ jonn yàlla tey dëkk bi yënguwul donc ñoom jàpp nañ ni kon xërëm yooyu sotti na déggu leen de ñoom jàpp nañ ni xërëm yi ñu wuti woon Inde ak seen sëriñ yi nekk Tamba ci àll ba ak lépp lu ñu fexe yi nekk Fuuta ak yooyu ñu def yëpp sotti na parce que ñaar la woon maa xam day woo Ousmane Sonko di ko interroger nu mu ko yi te dëkk bi du yëngu te moom it du dee du feebar parce que dañoo jàpp ni boo dajee usman Sonko mun ngaa cee feebar mystiquement mun nga cee dee donc moom gis nañu feebaru ci deewu ci dëkk bi yëngul dëkk bi tàkkut donc nee na xërëm ya sotti na. sëriñ bi aay na alhamdulilah waa Inde merci beaucoup luñ bëgg yëpp defal ngeen ñu ko maa feebarul tànk mettiwu ko dara dalu ko dëkk bi yënguwuñu te ñu ngi woo Ousmane Sonko di ko yóbbu muy ñëw di wuyu di def def ñaari yoon jël nañ ko ñëw na wuyu ji ne ko nice kon affaire yi mat na léegi maa xam ba fu ñu doon yàlla te yëngu amul déedéet boucler dossier bi tak tak maa xam boucler sans Dior Diagne sans Gabi Sow sans Mamour Mamour Bàccaam sans Mamour Diallo sans ñeneen ñi ci taq yëpp bouclé ok tegal ma ko lépp lu Sonko indi ak i nitam ci preuve sànnil ma fële yow jëlal ma dossier bi boucleel ma février jàpp avril walla mars février mars man la tegal procès ñu waajalaat projet bi ñoom ci ay pexe ok bu bu ñëwee bu ñëwee léegi ñun procès public bi ñu fay nekk ñëpp assistance bi yëpp dañu war a nekk waa Macky Sall yi ak ay ñiy soutenir ñu soutenir Adji Sarr bu mu am sax ay infiltré wax xool leen bu baax ñan la ñu fay nekk ak yooyu gaa yi dugal seen i bum nga ñëw waaw dama buggoon ñu kii wala waaye Sonko sol sa yére Sonko wala si suul ñu ne la non non saal bi dafa fees xëcc benn euh, benn benn benn Fallou ñaa boo xam ne bu tigrim bii boo xam ne mi ngi farak Macky Macky Sall ñu ne ko Fallou dugal ayca yow yow benn nit dof buy dox dox ñu ne ko yow euh, euh, dellu fii dafa fees ba ba duy ak ay makis ak ay souteneur Adji Sarr fees dell ñëw nawetaan ñoom ñu dajale Sonko ay avocat agos aji gauche Adji Sarr ak ay avocat am à droite seen procès saal bi ne teg ñu commencé di wax Adji saar commencé waaw bu ma jàppee mu juutal ma après mu may dóor ay wuraan wang ma nanga uga woo non non kii moo bon nga dégg gars yi commencé waaye nitu ay Macky Sall yeeg souteneur Adji Sarr nekk ci salle bi la la mais xoolal lii rek non kii du nit non di di saaga Ousmane Sonko eh calmez-vous ou bien on évacue la salle ñu yuuxu foofu non ki cagal la non kii non mais kii ñu ne bu ko doon président di ci politique ay ñoom ñoom dañ lépp politique c'est pas sérieux journaux yi commencé bind ñoom lu Adji Sarr di wax Adji Sarr di fen di teg di sosal papay jàmbur di ko takkal di ko ji di n'importe quoi te audio yi lolou yeb avant ñoo yegg fofu ay audio genn na te genn jëlu ko ke kenn prendre ko en compte ay audio aji sar ne Ousmane Sonko ñew na ba maase wu ba dem te musuma laal mais téréwul ñom ñu dem aji sar mel ni newuloon kuy wax ci audio yi ne mom Ousmane Sonko musu laal mu nekk fofu di wax na Ousmane Sonko da laal da def ni da teurel tëral ngapeku koo acc da nangam-nangam xol ñoon di tàcc du yu wa wa comme match Et duñ évacuer Le juge bi lever la science. dem les cartes, ci les ci ginnaaw bu ñu génnee ci café nous dóor café xam juge <laughs> nice de <laughs> Sonko mi ngi déstabiliser ngi déstabiliser ok cool Make it leen naka audience bi non non mi ngi naan mi ngi naan sa waay ñu gaa ngi koy déstabiliser gaa ngi koy déstabiliser gaa ngi koy damm damm yu garaaw booy ñu ngi yuuxu ñu ngi yuuxu ñu ngi koy nangam ñu ngi koy jiñ violeur nangam ah ok ok calmez vous gars mais oh, ci kanam rek waaw waaw ñu kii ñu toog naan seen café dóor seen tox seen kii aj aj xool aj tuux jógaat ok yëkkatiwaat séance bi aca la séance continue ñu toogaat aji saar eggale ay kàccam noonu noonu lañ ko nar a def wallahi billahi Wallahi, Billahi, non lañ ko nara def ni la leen décidé malgré que preuve yépp ñom nenañ affaire bi dañ koy par la force procès bu Ousmane Sonko waxé ñu yuux diñ ko viol saga bu Adji Sarr waxé ñu taccu yuux def ko comme nu def assemblée nationale kuy def ni assemblée nationale do bayyi palais de justice assemblée nationale mon deuxième pouvoir mon deuxième deuxième institution républicaine à part palais bu fekkee ni ñoom burxaxaa gogo, saaga ndey menace gogo, wax ju ñaaw invective boobu insulte yooyu ñu ngi ko def assemblée nationale duñ ko bàyyi palais de justice Nous waxante dëgg nag dof rek mooy bëgg a dof dof mais dama ne ñoom lu ñuy def assemblée nationale deuxième institution de la république xam nga ni ku leen tagal palais de justice ñu def la fa raw ku faalewul assemblée nationale faalewoo palais de justice faale wuñ leen lijjanti wuñ leen ñoom procès bi nee nañ day am peuple bi rek moo mën a tere ne procès bi am peuple bi rek moo ko mën a tere preuve terewul procès bi ay waxi Ousmane Sonko terewul procès bi seeni mettit lu kese terewul procès bi seeni wax kese ni tarawul procès bi seul la lutte la résistance mo tere procès bobu mais procès bobu buñ ci <laughs> yu ko dina ci fuñ ko foogeewul dé lan ngay wat nga indi audio ñu sànni ne audio yaangi génn ñu ngi koy tassaré gaa ngi koy déglu yëngu amul nga indi <laughs> nga indi lu mu ki kii gendarmerie bi enquête de la gendarmerie man lan lañ ma wax ñoom <laughs> non gars yi booy gis nga nguur lenn lu dul xeex mënu ko fa jële parce que alxuraan lu dul xeex mënul jële nguur fu mu toog nguur africain nguuru Macky Sall xeex rek a fay jëlee waa yi nekk ci ñoom ne ma Mollah ma ne ko waaw mu ne ma yéen a ngi wax ay waxu enquête de la gendarmerie tout ça mais ne waaw lan mo len weur ni enquête bi ngeen yor moy bu original bi ma ko si benn enquête mo fi am moy bobu mune ma kon yeen yow da nga gëm ni enquête bu Sonko jox ma xam mo moy bu original bi ma <laughs> ko si boobu moy bu original billahi mune ma naw da ngay nax sa bop te bés bu démé procès di ngeen xam ne boobu original bi donc lu ma ci comprendre mooy ñoom bu ñu demee procès ñoom dañuy indi ñoom seen bos ñoom état bi teg ne bii mooy bu original bii moo ñëw ci bu bu bu table Macky Sall kan moo dindi Ousmane Sonko indi bii ñoom ñu ne ñu bii moom bii mooy bu original bi ñoom ñoo moom ñoo yor institution yi ñoom ñoo fay teg ay nit ñoom ñoo xam originalu originalu enquête euh, interne de la gendarmerie bii c'est faux bii moom bii dañoo nax Ousmane Sonko bii mooy original bi. bi mo génnee ko ci ki ba paré jox ko juge ñen foog ni juge dana non bi bi la bu Ousmane Sonko bi du bi du bi bi bu Ousmane xool bu Ousmane Sonko lañ na fara tege ne bu original bu jël sen boss ubbi té lolu kenn ci ñom momako wax <laughs> ne ma boy bu nu faites rire ngeen naan ay Ousmane yóbbu na enquête bi enquête de la est-ce que bobu moy original bi est-ce que bobu mom moy enquête bi est-ce que yow Mara boobu nga yàgg ni mooy enquête ma ne ko si boobu la moom mooy enquête interne bi wax samay wax pare mu ne ma du moom ma ne ko ah mu ne ma non du moom du original bi léegi boobu ban juge moo ko mën a àtte Ousmane Sonko ne bii mooy original ñoom ñu ne du boobu bii la ban juge moo koy àtte donc enquête interne boobu dañ koy tegee nële dañuy indi bu foo teg ko ak beneen bi ñuy xëccoo buy original buy vrai ñu ne comme enquête yi kii indi na kii indi na ñu. te général bi du ñëw naan la non man bii laa bind donc ku leen di àtte du fa nekk résistance rek moo leen di àtte général boobu noonu def enquête boobu ak ñi nga xam ni ñoo def enquête boobu kenn ci ñoom du ñëw ci tribunal naan bii mooy original bi ñun ñoo ko def bii mooy original kon ku leen di àtte question laa leen di posé répondez-moi capitaine Touré géré wul enquête yi. enquête de la gendarmerie capitaine Touré loon ci ñuy enquête moom dañ ko doon enquêtaale rapport de la gendarmerie capitaine Touré enquête fa ña enquête kenn du ñëw ci jugement bi ne ñun bii lañu def ki leen ko sant muy Jean Baptiste Tine bi nga xam ni tey ambassadeur la fële ci Russie di représenter Sénégal Jean Baptiste Tine ambassadeur la fële ci Russie du mooy déplacé wu ñëw naan bii laa def donc kan moo leen di àtte question la andi posé de répondez-moi ken kan moo leen di àtte kenn du leen àtte ñu jëlee tege ne enquête de la gendarmerie nag mi ngi ne le comme amuñu bu ñu wóor ban mooy original bi parce que ñoom dañuy indi faux bi te loolu ñoom ñoo ma wax ma dégg kon seen i pexe ñoom seen i pexe des fois dañuy ñëw ci samay nopp seen i pexe damay échanger ak ñoom ba mu dugg ba ñu dugg ci man. donc ñoom boobaa te maa leen ko wax notawaat leen encore la ma leen wax enquête internet bu Ousmane sonk indi te muy original ba jour boobu du fa jar dara ne la lañ koy tegee. audio ya pare nañ invité nañ Adji saar Adji saar nee na maa ko wax dama doon nax insignes donc ojo ya jeex na comprendre nu leen de gars yi ay bandi lañ. dañu téla laaj seen armement ngeen jox leen seen armement ñom ñu indi compte armement ay bandé lañ yow da nga indi say preuve va tek bu doon justice bu baax day jël preuve yi natt mais bi justice bo xamné la dañ ko instrumentaliser seen juge lañ yor donc lu ko Macky Sall sante moy fexel ba jël ñëlé seen argument yépp yu ñu am nga récupérer ko tek ko ni après ñun ñu xont ñu xool argument bu nekk contre bu kay dindi wala bu koy mun a jaxase ñu indi audio ñoom ñu déglu audio yi audio yi lool ñu woo Adji Sarr aji audio yaa ko def aji na waaw maa ko def kay kon nii la demee déedéet demeewul nii de nan la demee loolu waxoon naa leen ko de te boobu ñëwagul de nan la demee aji ne non dama ko doon nax daf ma doon jéem a takk daf ma doon jéem a bëgg après ma koy foowee nax nangam moom lañ bind donc jour jugement bi di ngeen dem juge bi ne aji nee ne lii lépp ay nax la da ko doon foowee da ko doon nax kenn du ko tenir en considération ñu tege ko ne loolu moo tax audio yi di génn bu fekkoon audio yi ba léegi am na pesé na arme boobu noonu ñuy reyante kon buñ ko génne parce que dañoo génne audio yi pour wan sénégalais que gis ngeen seen pexe lii la yéen a ngi donc ñoom seeni pexe yéen da ngeen ko war a xam lenn kese moo leen fi jaaxal lenn kese c'est vrai sincèrement kese du ay ojo du ay enquête lenn kese moo jaaxal moom mooy alfu Alfousseyni gay mooy là où le bas blesse Alfousseyni Gaye mooy maanaam lii nga xam ni moom la def pour wane ni ci soixante douze heures yi kenn tëddeew ko loolu kese moo leen jaaxal mais nag dinaa leen waxal benn affaire quoi ñoom procès bi moom ils ont décidé de le faire procès bi te procès bi ils ont décidé taqal Ousmane Sonko pas de viol mais dinañ am luñ ko taqal ba am luñ def ci kiyam euh, lu mu tudd ci euh, ba ba condamné ko même buñ ko tëjul kaso condamné ko mais loolu man dama xamul ba xam ñun sénégalais non non dafa yomb moom yombul ndànk depuis début ba léegi dafa yomb te ñoom ñi ngi dem seen yoon waxin wax wax yooyu moom du ay waxu du ay wax yu dëgër balaa ngaa génne dara sa gémmiñ da ngay réfléchir loolu moom daa yomb moom yow moom sa bopp la ngay dundee daa yomb trop ndax affaire ba fu mu tàmbalee ba fii dara jafewu ci lépp a yomb te mi ngi bi ngi continuer ba léegi lu koy yomb jooju mi moom mi ngi avancé seen yomb googu ñu nekkee loolu yomb loolu ñu nekkee ñoom malgré que dafa yomb waaye mi ngi doon ci yow bomb parce que tere na laa nalaw tere na laa am jàmm te ñoom yomb na mais ñi ngi koy utiliser <laughs> mais lu yombu ka yi nga xam ne daa yomb da nga koy arrêté c'est tout buy senn wala buy toq mais da nga dem tëj rek doo toog fu toog rek robinet bi di lii moom dafa yomb lii moom dafa yomb ah robinet bii di senn nii ah lii oo dafa yomb fin du mois ñu indil la facture bi dafa yàgg yomb ba pare mi ngi avancé rek mi ngi yomb mais yow mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi avancé ñoom ñi ngi dox ci lu yomb mais mi ngi ñëw ci kaw mi ngi ñëw sa kaw ah. dafa yàgg dafa yàgg di yomb di ñëw di yomb di ñëw di yomb di ñëw mais nañ ko arrêté <laughs> nañ ko dakkal man gëmuma ni war nañoo bokk ci ñuy seetaan ba gars yi dem procès man gëmuma loolu c'est mon point de vue gëmuma ni ñii mun mais lan moo gën a yomb ab histoire ñu ne la Mamour jàll mooy l'instigateur benn yoon lañ ko woo ma deful ci bureau des juges dix minutes lu ko gën a yomb koo xam ne ñu ne quatorze morts ak doomu aadama yu ñu rey li am lépp kiñ ko jiiñ deful dix minutes bureau doyen des juges dafa ñëw rek teggi dem yoon lu ko gën a yomb dafa ñëw rek effacé je n'ai jigéen kii benn yoon laa ko mos gis dañ maa woo ndimbal am keneen moo ma woo mu ñëw jàppale ko dem sama yoon amuma lan lu ma séq ak moom man musuma dem foofu musuma maase dañ may taqal ku dem génn dem yoonam lu ko gën a yomb alors jàllul yomb boobu jàllul wala dafa jàll <laughs> wala ba léegi jàll mais yomb boobu dafa jàll aji Sarr def ay audiom ba mu fees dell ñu jox doyen des juges mu woo la lendemain Adji Sarr Adji Sarr ñëw waxaat ne audio yii am dama doon foo et pourtant <laughs> jàll na du ko gën a yomb ay lu daje ay eh, MC Niass di ab sëriñ di kilifa di wax ak Adji Sarr enregistré Adji Sarr ñëpp xam ni ki Adji Sarr la ñëpp xam ne lii lu dëggu la ci li lu muy wax ñëpp xam ni lii muy wax ni da koo gëm lu gën a yomb juge bi woo ko rek ci benn fan rek mu effacé loolu lépp ne dama doon foo dama ko doon nax ah, mbalee mu jàll lendemain bu ñu génnee audio yéen ñëpp a kontaan non c'est fini jeex na l'histoire tas na Adji Sarr dootul amati non lieu di way wate non lieu non lieu juge ne aji kaay aji audio yi nag non dama doon foo dama leen doon nax aji génn rek ne nee na da leen doon nax kaay woo wuy sama nday yàqu nañ ay ya yaa mel nu ko doon dugal bii ñu ne la hors-jeu ay ya yaa non kon loolu la non aji daf ñuy yàq ay ya yaa mais lu gën a yomb loolu <laughs> ci yomb lañ leen di dundalee ne ba nii dara méttee ko fi ci yomb lañ leen jàppee di leen manipuler ba nii audio yi ak lu mu dayoon Adji Sarr ñëw ci ay fraction de seconde da mba léegi dama leen doon fo eh? ñu ne audio yi jeex na yàqu na audio yi moom génn aji neen da doon foo lu ko gën a yomb mais ci yombu la gars yi di dox ak yéen loolu dafa yomb torop dafa yomb torop mais yéen koy dundee dafa yomb torop moom mais yéen a koy dundee ñi ngi leen ciy dundal ñi ngi leen ciy tenir en haleine ñi ngi leen ciy jox ngeen di lekk di leen ci jox ngeen di naan ci lañ leen yor ba nii di leen manipuler suba ngoon loo joxe ñu fooyee ko loo joxe ñu fooyee ko <laughs> mais alors sa waa ji nag li ngeen ragal li ngeen bañ a dégg moo fi des fippu farata la jóg fippu parce que ci yomb yomb rek lañ ne lu gën a yomb mooy lu gën a yomb ñu ne Gabi moo jëloon Adji Sarr yóbbu ko pour mu gis docteur seenu Gaye pour mu xool ko pour ne ko maa ngi lay yónnee benn xale monter dossier boobu yëpp avant sax viol bi di am mom Gabi pare wax naa ak Adji te kenn musul wo Gabi Gabi so lu ko gën yomb gaay yi del del ma wax rek lu ko yomb Gabi mo bind mo bind li nga xamni mom moy plainte bi te bu suñ jonne yalla te kenn enquêteul Gabi musul taxaw bureau doyen des juges lu ko gën a yomb <laughs> tontu leen ma billahi wallahi gis ma lu ko gën a yomb da ngeen wax yomb rek ci lu yomb la leen gars yi yoree di leen manipuler ba léegi kuy wër lu yomb gars yi ñoom réussir nañ ko ci peuple bi lu ko gën a yomb noonu <laughs> may yaakaar amu fi xeex moo fi des amul leneen lu gën a yomb gabi bi nga xam ni moom da cee taq rip moo def moo bind moo gis aji Sarr avant sax viol avant soi-disant viol mu gis aji Sarr wax ak moom wax ko nan la ñuy def na nga fexe ba kii ko rek ba am sperme nangam nang lépp ngeen dégg ko te gab yi ba léegi kenn interrogé wu ko lu ko gën a yomb te peuple baa ngi toog di xool lu ko gën a yomb nañ demaat joor Diagne def benn message message ba. di takkal Ousmane Sonko di ko incriminer mu juum envoyé ko benn ki nga xam ni moom mooy avocat wu Ousmane Sonko message bi nga yëpp yor ko ñi woon ko sénégalais te gel bu def loolu ba léegi musul toog ak doyen des juges mu enquête ko lu ko gën a yomb ñi ma lay wax yëpp ay preuve Dior Diagne lu mu def ci affaire bi yëpp kenn mësu ko woo bureau doyen des juges lu ko gën a yomb gisuma ko <laughs> foofu moom ci lu yomb rek la ñuy dund ak de dara gënu ko yomb joor jaañ takk ci ripp tilim ci kukk ba didim ci ay nitam sax ñoo nekkoon di wër Adji Sarr ñu wëroon Adji Sarr yëpp ay nitam lañ ñu jàpp ko ak message am mu yónnee di incriminer Ousmane Sonko ñu jàpp ko ak message bi indi teg ko te kenn enquête ko lu ko gën a yomb lu ko gën a yomb kii nga xam ni mooy Suzanne kamara taxaw mu am crime ay nit yu dee mu taxaw ne dañ leen a rey te ba suñ jonn yàlla te duggul ci kaso kenn musu ko interroger lu ko gën a yomb <laughs> xanaa yéen da ngeen bëgg ma fanaan fii ak lu gën a yomb ci yomb lañ leen di dundalee ci lu yomb rek ngeen di dundee ngeen di wax ay waxu ñenn ñi naan moo laa loolu day yomb torop yow ci lu yomb lañ lu dundalee ba nga toog fi naan moo laa yow day yomb torop déggoo ma de dama ne Suzanne Camara taxaw Ahmed Suzanne Camara taxaw ay ñeneen ñi ñeneen ñi Karim Xrum-Xax def ne imam Alioune Badara ndaw dañoo war a def autopsie bu mu dee mu ne dañoo war a def autopsie xool ba xam dañ koo rey parce que doon na jooju naan dañ koo empoisonné nañ nangu ñu tukki ci kaso kii jean Omar Diagne ah vraiment nit da autopsie ñu tëj ko ci kaso Nous lu ko je yomb Nous nga nga Nous Moi... Euh, ne je pense pas que je pense pas que ñu rey Didier Badji je pense pas xanaa nag du dee ñoo rey Didier Badji ñu tëj ko ci kaso bi je pense pas je pense pas la wax de waxul ne dañ koo de je pense pas que kenn nañ def autopsie ñu dóor ko ci kaso bi mu def 4 mois Cheikh Omar Diagne Karim Xrum Xax ne nañ def autopsie ñu dóor ko ci kaso bi 4 mois Fadilou Keita ne je pense dañ ko war a rey dañ koo rey ñu dóor ko ci kaso bi Pape ñu ne ñu deful dara moom moom moom waxul sax waxul sax ñu ne ko non dangaa sosal institution dóor ko ci kaso bi génnewaat ko ne ko non dangaa saaga Marème Faye dóoraat ko ci kaso bi <laughs> loolu yaa ngi toog di dund lu ko gën a yomb Suzanne kamara dañ koo rey te kenn tëju ko Bah Diakhaté ñëw saaga seen ndey ñoom te kenn tëju ko ay nit jóg porte plainte Bah Diakhaté ak Suzanne Camara ñu taxaw di di woy tegale seen tànk di woy olé olé olé olé ñaf seen maam noq seen maam olé ak kii nga xam ni mooy <laughs> dof boobu di woy olé olé Fadilou Keita ne je pense pas que ñu dóor ko ci kaso bi loolu lu ko gën a yomb te yaa ngi dundale yow nga xam ne ci lu yomb rek lañ la dundale lu ko gën a yomb kii ne dañ ko rey ñu bàyyi ko fa Suzanne Camara dañ ko rey ñu bàyyi ko kenn je pense pas que ñu dóor ko ci kaso bi dof bii nga xam ne mooy baa jax da ñëw saaka seen nday na dañ ko rey ñun ñoo leen rey ñun ñoo leen rey ñu bàyyi ko fa Karim Karim Xrum Xax ne noo dañoo war a def autopsie ñu dóor ko ci kaso bi Cheikh Omar Diagne ne non da non c'est pas possible ah non eh gars nañ def autopsie ñu ne ko nokk ci kaso bi yow nga toog du xoole lu ko gën a yomb lu ko gën <laughs> wax leen lu ko gën a yomb <laughs> man de gisuma lu gën a loolu <laughs> ñii nan dañ koo rey toog kenn enquête leen ñii naan ñun ñoo leen rey Bah te dafa taxaw ni ñun ñoo leen rey on les a éliminés bay félicité Moussa Fall donc big up Moussa Fall one love Moussa Fall nañ leen rey ñoom ñëpp rendi leen leen ñu ngi toog Suzanne toog ñu kontante olé olé olé olé ole Fadilu yang cikasobi sobi. Gaya tak tak tak tak tak tak. Kalau yang cikasobi Pap alenya cika sobi. Kat kat kat kat kat. Jax Omar Jan cikasobi sobi. ñun ñi ngi ni di sen day ne yena ko ray ñun ñoko ray ñoko dagate di di way lu ko gëna yomb ana ngeen ñoom lañ <laughs> def lu ko gëna yomb day wax yow rek moo la loolu yow mën na de toog di toog naan seen i café wala lekk seen i firi moo la li ngay wax moom yow mën na de li ngay wax yow li yombul léegi lan moo la tere def lu metti dafa am lu yomb ak lu jafe léegi lan moo la tere jóge ci lu yomb loolu yéegal ko ci lu jafe anamu anamu nañ bàyyi caaxaan nañ bàyyi discours tapé di nañ bàyyi toog fu ñu toog duñ jóg لن باي راجل دي دو خيخ اللي باي دوم عرمي نن دو قري نن باي تاخن نن باي تاخن فوق ايبو امي ييني فوق من فوق ما بولن خوالي سما خيخ خمني من فوق ما فوق مولا فمو يهو نجن كي 100 ميل مولا تي تي انترنت بي ني واخ تي موم مولا داي فوق دي دي ييني فوق Mollah moom saa yi yeewoo wax tot tot saa yi yeewoo rajaxe bin bin tuuti tendance rajaxe yow yaay foo yow moom yaay foo mais Mollah foowul de te ñoom xam nañ ni Mollah foowul yow moom yaay foo mais boo yéegaloon seen niveau ci Mollah ci xeex bi mu day ni ni Mollah ni muy xeexee léegi ñoom ñu sérieux Mollah miy saaga seen ndey suba ak ngoon Mollah miy yëlëb seen silibu ndey yi Mollah miy yëlëb seen benn fóot seen seen stringu ndey yi ñoom Mollah mi yëlëb seen seen silibu bàyyi mbóot yi di génn Mollah fawul de Mollah mi ngi ci xare bu tar di yëlëb seen silibu nday yi di di di seen stringu nday yi di toj seen seen xuuru bàyyi di daqaar seen maam muy saf-sàpp Mollah fawul ak ñoom de Mollah ci xeex bu tar la ne xeex boo xam ni ñoom amuñu jàmm panique totale ñu ngi yuuxu di wëri sëriñ di joy di metti di menacé gaa musa yë moolaa kay mi ngi këf seen xuuri di bëss man sama problème du moolaa de yow mi la yow mi te mu ne ngay dund ci lu yomb baña genn ci lu yomb bi yéegal niveau bi ba ma kawé ba vase bi tang jër nek ci kaw di bax baxi bax bax bax bax ñu xam ne yow yow yaa yow problème bi yow ya ñëwagut mais moolaa moom mi ngi ci xeexam de mi ngi ci kaw di door mais li dof du gumba tëx déggul jag déggul négociation foo àdduna moo laa wéy moo laa kaa ñu jox la lii moo laa ñëw ko ah, waaw waaw waaw waaw naa la woowaat ja fum fum fum fum ñu xanaa xamoo nguur ga dañoo dem ba xamatuñ ko yónni parce que Seydina Mohamed nguur gi yónni nañ façon doomu aadama bu ne <laughs> nguur gi façon doomu aadama bu ne yónni nañ ko ci man barki laa ilaha illallah kuñ yaakaar ni mun na wax ak man rek yónni nañ ko bu ñëwee wéy Mollah na ko gaañ def gaañ waaye mais Mollah mais jàpp ci boog mais Mollah xoolal mais non mun nañ la defal lii mun nañ la defal laa ma toog rek man du dóor mandi bi wéy wéy wéy wéy non mun nañ ci def lii xam nga yow nga defaru xam nga ñu kii jox la kër jox oto lijjanti moo laa def mànd bi non non grave non nañ nañ gérer nañ gérer waaw nañ gérer bañ foog ni dal na ñu dem toog pale oui moo laa wax nañu moom moom <laughs> mi ngi calme fekk moo laa mi ngi préparé wutang wangam pour commencé préparé ñoom ñu ngi toog na waaw <laughs> ñaari fan yi moo laa waxu ci de <laughs> moo sa sëlibu nday sa belefete baay tey rek ma toj seen waaye tey rek ma këf sa xuuru nday tey rek may waay du waay waay waay waay ji waay na waay yow yow waxoo nag moo laa waxoo nag moo non waay yow kii is ko dofut yow kii wax naa moom keroog ba mu ne ma bàyyi na non ay na ko non jël kooku teg yónni keneen wallahi billahi nguur gi li ma recevoir ci ñoom ay doomu aadama ëpp na ëpp na huit barke alxuraan ëpp na huit façon doomu aadama bu ñu yaakaar yoon nañ ko ci man ñëwee nañ ci pexe bu ne ñëwee nañ ci xaritoo ñëwee nañ ci gaynoo ñëwee nañ ci ruyal ñëwee nañ ci nu ne ñëwee nañ ci wiiri wiiri ñëwee nañ ci jaari ndaare mais saa yu ma nee nii déglu ma pare préparé sama opération rëbb dëmm tey rek ma fóot seen bele fete bàyyi tey rek ma futti seen stringu nday yi tey rek ma waayow dem len laaj Tafa bu da prince bu mu demee ci hôtel bu mu demee ci palais ba buy wax bay wax parrainage am ñi muy parrainé wax na awadi de Macky di deglu, déglu mu dor Matador Macky di ko déglu mu ne Degeti Macky di ko déglu mu ne mola Morgun Macky ne ni ba ñëpp remarqué ko mola morgan ci parrain yi daf ne mola morgan Macky ne nii <laughs> def benn sourire am <laughs> xam naa mooy ii doomi xaram jooju ngeen ko fi bañu tuddé tudd <laughs> ni di signi bañu gaa yi génn Macky mag mii la bi ñu waxee Mollah Morgun sax daf doon reetaan daf doon reetaan ma ne ko loolu mooy ay riir jaune loolu mooy riir jaune xam nga bu ñu waxee awat yi dafa ne muut ñu ne degati mu ne muut ñu ne tuddee même affaire bi événement bi tuddee nañ ko lu euh, mu mu ne muut ñu ne même Mollah Morgun ci parrain yi la Mollah Morgun rek mu ne <laughs> xam naa ci xale ma naan Mollah Morgun ñii moom yóbbuñu moom kii di saaga sama ndey su wàngoon guddi bi ngi di reetaan loolu mooy riir jaune kon moo laa muy xeex man ci xeex bu tar laa ne foofu ma de xam nga magi dafa foo muy jéem a ree <laughs> di jéem a nëbb kii Tafa Tafa Dabrans am fu mu dem ca ba ne leen mais lu ma jaaxal kon yéen da ngeen wax ak Mollah gars yi ne ko Mollah nag mooy koo xam ne ku ko woo mu wuyu la mais ab doome xaraam la saaga sax lañ def ne ak doome xaraam la mais ku ko woo mu wuyu la nag nga xam nga ku nangam taan ndayam la doome ñoom ñooy saaga de pale ba ni doome xaraam la da ngay wax ak moom ba foog ni gañe nga ko mais xaw ma dafa am ay rab xaw ma suba si mun naa génn yow sax saaga ba saaga sa ndey yow sa bopp. Tapha Dabrène ci bopp nag ah da ngeen wax ak moom daf ko laajte moom kon yéen da ngeen wax ak moom gars yi ne ko si moo laa koo ko woo mu wuy la loo wax dana un ah un ah un ah un ah non ah, problème non problème non problème non problème ba nga dal ba naan ba tëdd naan tey ma nalaw naan ah tey moom day naa nalaw day rek ma dégg tël tël wuy wuy saaw wuy moo laa jowaat wooy wooy wooy noonu laay doxee ak ñoom barki alxuraan moo laa ba biir pale wu xam te nekk ma fa de sama ombre nga fa woon de tudd nañ ma fa de Macky ci la reetaane ñoom ñu ñëw daw ñëw na ma kaay wax nañ ko surtout muy ree <laughs> man noonu laay doxee ak ñoom man maa ngi xeex de sama xeex caaxaanu ma ci fooluwu ci waaw caaxaanu ma ci réew ma ci bañu ma ci dara it ma ci dara lu ñëw ma sante ko yàlla ci dara. il faut ngeen xam loolu de ku ci calculé wul dara mooy bañu ci dara yéen yéen a war a jóg xeex gars yi ci lu yomb lañ ñu nekk dañuy naxee dañuy fowee li ñuy xaar mënatul am Ousmane Sonko bi naan ay bu nga xam ne di jóg naan ay résistance non ñi am am nañ mature am nañ maturité ils sont matures ñoo war a jógal seen bopp mais man sama xeex maa ngi koy xeex ni mu waree sincèrement façon doomu aadama bu ne man dem nañ ba proposer ma pour liggéey ak man nguur gi liggéey liggéey en échange pour mu ñëw tayle samay informateur <laughs> mais est-ce ñuy wér nañ <laughs> oui on peut travailler ensemble mais en attendant yow gars yi nga xam ne ñooy génn nekk ak ñun fii di la di la di la jox ay information la ñuy bëgg a njëkk a xam en attendant pour nga xam ni duñ leen rey di leen def dara mais dinañ leen mettre en quarantaine ñi nga xam ne yow ñoo lay informer waaye dégg leen waxi dof yooyu dañoo yaakaar ne am nañ xel mais amuñu xel ñeneen dañuy bugg a liggéey ak man ma mel ni benn benn benn travailleur de quoi toog fii doon benn travailleur de l'état ñi may viiral ay sama compte ay xaalis may fayeeku léegi ñoom ñi jàppee ennemi nekk foofu noonu ci république bi te ñu jàpp ni ñoom ñoom ñoom may ñoom ñooy génne affaire yi pour man ma yoole leen pour man ma ñëw ne ah Pape Demba bokk na ci sama ñi may ñi may informé ah Pape Demba ah ok kon Pape Demba da la informé waaw waaw ñu noté pour après ñu mettre en quarantaine Pape Demba parce que ñooñ c'est les traîtres de la république wala waxi dof yooyu waaw bu fekkee ne am nga ay ojo nga yónnee audio yi quoi pour ñu mun a gën a xam ni ñoom la quoi bu dee aussi am na ay ay genre euh, photo wala vidéo yi ngeen dem nga yónnee ko bu dee aussi xam nga fan la ñuy fu ñuy contacter yow nga screenshot ko fu ñuy waxtaanee yow bu dee ci Facebook la nga screenshot seen waxtaan yi bu dee ci WhatsApp la ngeen nga screenshot seen waxtaan yi bu dee ci Instagram la nga screen screen screenshot ko après nga yónnee ñu ko ak audio yu nga am ak ñoom. après ñu liggéey job ensemble xam nga yow nga xam ne yow da ngay xoolal affaire sinistre yooyu ñu ne man man man dañ may utiliser man ma toog fii di sacrifier samay doomu aadama yi nekk Sénégal yu bëgg la vérité yu bëgg dëgg ñi nga xam ne ñu ngi rayante di jaayante di ma joxe information pour man ma sacrifier leen <laughs> est que dégg ngeen waxi dof yooyu <laughs> mais man baaxuma ay ki rasul lay boo doonee kàccoor kàccoor gu mel ni man billaay xamuñu ma dañoo wax ba pare ba jël benn waay ci ñoom jël ay affaire samay audio jël di audio audio fëgg kat audio bum bum bum benn kii benn photo mooy screenshot tak tak sànni ko moom mi ngi na nalaw de benn flash la def de xam nga dem na ba pare mu jëlaat ko supprimer kat yëpp fat fat fat fat supprimer <laughs> parce que rasour laay lañ ma yónnee oui mais oh, tu ne fais pas confiance à nous mais contre donc bu le parce que gis nañ nous def barke ba quatre h du matin sommes wala trois deux du matin deux h du matin audio fat fat fat fat quatre audio audio man kat kat kat nous sommes ba audio yi fa h yónnee ma screenshot sommes affaire tak karaj faire ko mu mu ba ma gis ni mom dem na ba pare ma effacer yep tak tak tak tak tak tak ni man sànni naa la kaat yi ba pare mais kaat yi dina naaw léegi da jàpp ne man joxoon naa la information mais information bi ki maa ngi commencé liggéey ak jox naa la information information effacé waat naa pour daw loola. bu ñu yeewoo fajar man maa ngi gis audio bi mooy jaajëf monsieur naka moom Mawla naka wuyu mais affaire yi nga effacé noonu nu wala affaire yi mais aussi ñu liggéey aussi confiance confiance des moy tax ñu confiance bobu amul aussi nekkul suñu diggante du <coughs> man maa ma tak tak tak tak la affaire mental intelligence maa leen ëpp maa leen fuuf fii laay toog di noq seen ndong li di leen fooye fa fa fa fa fa fa effacé yëpp ñoom ñu woote mer kii waa ji maa ngi dawal ni am na ku ma nekkal maa ngi dawal mais après naa la bu bu bu ma gaaree naa la woo bu ma gaaree naa la woo léegi dina woote waat ma ñu waaw mais Mollah da nga din la non non non dama juumoon quoi mais audio yi ñoo bëri quoi mais maa ngi xoolaat naa la yónneewaat audio ba da la loolu laa koy def nar a def maa naa yónneewaat audio quoi dama juumoon en fait boo gisee ma dindi dama juumoon quoi <laughs> ils peuvent pas le récupérer ils peuvent pas le récupérer ils peuvent ay ojo yoo xam ne ñu dóor la ko benn flèche dégloo ko ko deful ñaari flèche yow nekkoo en nga récupérer ko <laughs> mënuñu ko non non non non c'est pas possible man ma la wax loolu c'est pas possible mu ko rek bu ko non récupérer du ñëwaat di joytu nan mo affaire yi indi won lutax nga xamul sax lan la gis na dal ay effacé te loolu du ay audio kenen sax samay audio la man samay audio samay audio go de samay audio man ma len japp kañ def len golo man ma len di def golo di len fooyee japp sen ndong yi di kong kan di fooyee ma len gëna a ma len gëna siburu dama leen woon ne yéen amu leen xel sénégalais ñoo juum rek fal leen am leen fu ñu leen teg mais amu leen xel ñoom dañoo jàpp ne loolu kon ñoo loolu ay ay mbir la yi ñëw ci man di jéem a négocier ay kaa ñu liggéey fii kaa man gouvernement mënul liggéey man man damay xeex damay xeex ak ñoom foowuma ak ñoom donc il faut que yéen ngeen jóg il faut que yéen ngeen taxaw man ku taxul war a xam ni man duma kuy cëppalaate bu ma commencé génne révélation yi ba suñ jonn yàlla tey kan ban doomu aadama lañ fi jàppagum le day informé xam nga dama leen wax ay affaire yu graaw comprendre leen est-ce que duma leen ko tegal sax léegi est-ce que xam ngeen Fulbert Sambou ak Didier Badji lan moo tax ñu topp leen <laughs> gars yi dañoo dem ci appel téléphonique yi appel yi appel yi lu leen de appel téléphonique yi ñu dem xool appel appel téléphonique L'endem dem gis Nous dem top parce que Sénégal nous dañuy contrôler fauves. mais fii nous mënuñu contrôler les appel te man samay informateur du appel téléphonique c'est très stratégique loolu moo tax mënuñu capter sama benn informateur ba suñu jonn yàlla tey jàppaguñ sama benn informateur jàpp te amagul ci ñoom naj nii te amaguñ ko ci ñoom de sama informateur yi à part bi nga xam ne après moom seey na mi ngi ci jàmmam effacé naa ko mu ngi fële ci jàmmam maa ngi continuer samay informat mation ak samay radar te mënuñu ci kepp kenn mooy lu mu leen di wax saa su ne pas de faille pas de faille on est en guerre pas de faille bu desee ci man kese kenn du leen jàpp infiltrer leen calme tak tak loolu leen yor sànni tak tak ma jot tak tak soit email soit euh, message tak tak Aïcha mu raxas nga bind tak tak ok ma xam ne ci ay code ma xam ni dara ñew na sama email mu ubbi tak tak tak tak tak jot na ben rapport ana ki email bi mi ngi wat amna bu ma sax jot ni tak tak ma dem sama email ak gis na message fele tak ya nga rapport bu ma daane ñew na tak mi ngi tak tak tak tak tak tak wa wala mi ngi nii par mail tak ma enregistrer honoraire tak tak tak tak tak tak xolal dossier bi du mi ngi ni di enregistrer mi ngi ni ñu ngi ñëw na information tac tac tac duñ gis duñ xam donc ñom ñom ay réquisition lañu top fulé appel yi Fulbert Sambou réquisition lañ topp Didier Badji ay réquisition la ay appel téléphonique ñu xol lien tac tac tac tac tac effacer ñom ñoom dañuy effacé nit yi fep fu gis trace dañuy effacer donc mënul ñëw ci man man sama informateur mënuñu ko xam mënul jóge ci man ci yeen rek la mën a kon bu leen wane benn signe buy wane ni yéen da ngeen di wax man bu leen wane benn signe effacé wu leen effacé wu leen complètement bu leen ni tàkk xol am na lu ñëw de am na lu ñëw de <laughs> am na lu ñëw de am na lu ñëw de lii ay milliards la gaa gars yi détourné te jot leen ci nañ leen ko dóoral yow mi ngi nii te yàlla annulation virement quarante tak tak tak tak effet commerce chat tak tak tak tak tak mu ngi société tak tak tak africaine tak tak tak tak ñaata ñaata ñaata la ñaata laa ilaha illallah deux cent trente sept millions tak tak tak tak laa ilaha illallah xoolal retrait yi 2 milliards 370 millions 810 451 tac un retrait crédit montant signé tac 50 millions tac 30 millions tac 30 millions tac 30 millions tac 30 millions tac 30 millions tac 30 millions tac tac retrait gars retrait allah millions milliards Tac, retrait ñëw na redevance tac tac tac tak Sonatel mobile tac tac tac tac société haute africaine tac tac tac virement tac tac tac tac ñaata milliards 42 deux milliards sept millions cent 247 et ñëw affaire yaa tac tac tac tac benen tak tac tac tac tac tak tak tac tac tac ngi tak tak ay milliards kon information daanu na tac tac tac ma jël tac tak tegee ne systématiquement tak tak tak ma dugg après nag guddi ma toog jël sama temps commencé noter génn feuille tak tak tak commencé lire nii laay liggéey gars yi trace du jël secret d'état yi di indi may teg di job tak tak tak coow du jib bal du tak suuf yëngu les secrets d'état et les secrets d'état déglu leen ñaar yi laay liggéenti les secrets d'état et les secrets d'état mooy sama spécialité les secrets data et les secrets d'état dinaa ko régler ba mu ne cocc cocc ñaari bàyyi leen ko sama loxo dinaa ko régler ba mu ne cocc yéen assuré leen seen côté rek dinaa régler les secrets d'état et les secrets data incha allah ba mu ne cocc ñoom ñëpp naa leen yar ñoom ñëpp naa leen yar fu nekk nii casino terre bi tekk la def tekk tekk dañoo bëggoon def seen point de presse seen point de presse lañu buggoon def seen borom alal yi doon sàcc alal Sénégal yëpp di fa dem di jouer ci roulette bi di jouer ci machine à sous yi ñëpp pasay ñëpp foofu nee na salaw salaw <laughs> démb kenn ci ñoom boo na ma waaw Mollah na mu ñu jaar mais Mollah gaañ dawloo nga sañu client yi de ah bon ooy suñu client yëpp daw bàyyi même moo laa jàpp ci baag xam nga rek ñun dañuy daan suñu doole xam nga ñun fii dañuy ñëw di faay pour am lu ñu lekk lu ñu naan di jox suñu njaboot mais bu ñuy demee ba xam ne xam nga naari rek ñoom du ñuy mbokk quoi te xam nga fii hôtel bi naari ñoo ko moom quoi ñoo moom affaire yi donc bu fekkee ni tey jii yaa ngi dàq ñi nga xam ne ñoo doon indi xaalis après day indi somage quoi day tax ñu ñu wàññi ñu parce que liggéey bi bareetul gars yi yoroon xaalis yëpp ñëwatuñu quoi xam nga ñu lay ñaan rek nga teggi sa tànk nga teggi sa loxo tuuti quoi saf na de démb am ku ma woo ci ñoom ndeysaan ma ne ko wéy loolu dëgg la moom xam naa ne ci ngeen di daan seen doole ci ngeen di lijjanti seen soxla waaye xam nga rek <laughs> dafa xaw a métti xam nga casino moom yàlla da koo alak déjà jeu de carte jeu de yàlla da koo alak te man it dama ci dama ciy jaamu yàlla xam nga yéen da ngeen di liggéey tamit dëgg la macha allah merci da ngeen ci jaamu yàlla di ci dimbale seen njaboot man tamit li may def nii dama ciy jaamu yàlla. parce que nit yi sàcc sañuy alal ñëw casino di fa jouer benn night dix million quinze million yoon la tamit man ma taxaw xeex loolu. man kenn koo xam ne sama yoon nekku ci moom alalu baayam la jël yàq foofu amul problème mais képp ko laal ci état bi moom dama lay opération rëbb dama képp foofu dugg il faut topp parce que suñu alal la ñu sàcc ñëw foofu di di ci foo jeu jeu di dugg ci ay jeu di ci gagné ka perte des fois ñu perte dix millions quinze million suba ñu gagné vingt millions donc ñooñu man dama nekk di opération rëbb dëmm di leen dàq ci town bi di leen jàpp c' est des secrets d' état et d' état donc loolu moo tax donc munu ma leen bàyyi c' est vrai nit yi maa ngi wax ñoom daw nañ léegi defatuñ fa xaalis xam nga yéen bu deful nag yéen tam dañ leen di wàññi parce que xam nga du doo am liggéey bu ngeen liggéey mais nag naa yi c'est vrai seen intérêt la ñuy wut jëluñu leen parce que dañuy wut ay employés déedéet dañ leen parce que dañ leen a soxla point bu leen soxlawul dañ leen di bàyyi mais man it tamit dama am benn liggéey bu ma nekk di def mais mais sa waaye foog ma liir lii nag et si saa jonn il est fort dama ne secret data ñëpp di tëb di dal secret data secret data ñiy tëb di dal data égal fichier data mooy les fichiers les données ci Sénégal <laughs> ak ñoo mën man nag bandi laa nag <laughs> damay wax ak ñoom mais xamuñu ni man ab wuyu laa wuyu maayen laa bandi cerveau laa man ni data ñëpp tëb tëb <laughs> secret data et secret data secret mooy les les secret di ay fichier data moom mooy ay données les données data data les données ñëpp tëb di dal foog ñoom Euh, euh, euh, wurang-wang laay wax may wax waxu donné les secrets d'état et les secrets data ñëpp foog ay waay gars yi ñoo bëgg sexe ay waay man gars yi ñoo bëgg sexe ak ñoo yàkkamtee dégg la ñuy gis fekk man maa ngi wax waxu <laughs> sullu ak dagg-dagg nu muy def Sénégal dégguñu dara boo leen waxee pétrole duñu dégg nga ne leen gaz ñu dégg nga ne leen zircon dégg nga leen ñi ngay tëj waaja duñu dégg nga ngi koy fenal duñu dégg ñu ngay comploté duñu dégg nga ne leen data rek ñu déglu bu duufa la bu bu sew bu ñuuloo la bu xees fekk yooyu yaa ngi wax ko done <laughs> lii ko ko lijjanti dee non man xaaral ma yow ba beneen yoon quoi li kenn mënu ko la jënd waa papa papa ñoom ñoom ñoom maa ngi tata tata ñëpp ñu foog laay wax man waxuma ndar fane ay secret laay wax fichier secret secret d'état et daal bu ñu leen waxee ni Aliou Sow Aliou Sall sàcc ci pétrole ba doo leen wax zircon ba dem na or ba dem na Sabodala mosu leen ko secret data rek ngeen di cëpp ku ne ah ah eh, eh, moo laa ngay wax de moo laa ngay wax de. dal dal dal dal dal dal slow down slow slow slow slow slow slow slow slow down gars yi gars yi slow down calme calmos calmos wàcce leen tension wàcce leen tension naan leen ndox naan leen ndox naan leen ndox. ku ku ku ji jege naa leen ji naa leen ndox mu sedd dal dal dal dal dal bu leen tàng bu leen tàng bu leen tàng ay dossier laay wax ay dossier la data bi ay dossier la dal dal dal dal dal xool leen foofu ndox mu sedd ngeen naan ci xaaral man sax man tam ma naan naan leen naan leen naan leen naan leen naan leen naan leen naan leen tuuti ndox naan leen tuuti ndox gars yi jël acca jël leen bidon yi jël leen bidon yi jël leen bidon yi acca jël leen bidon yi ayca naan leen nan leen tuut nan leen tuuti ngeen dal ku ci yore jus itam jëlal jus xool leen lu sedd naan leen ci sedd ah. après ñu continuer waxtaan bi tuuti après tëj ko pour l' instant xaaral ma teg son ngeen ngeen wut ndox jël leen ndox jël leen ndox jël leen ndox tàng ngeen trop fu mu ne nii moom da ngeen tàng jër jër jël leen ndox en attendant ñu xool nan la ñuy doxalee fii fu mu nekk nii acca acca acca ana teen yi ana root leen root leen naan leen naan leen naan leen naan leen relax relax relax na dal na dal na dal nañ ko reesal nañ ko reesal na dal na dal na dal na dal na dal na dal na dal na dal na dal na dal waaw na calme na calme na calme raay raay raay mbelle raay mbelle raay mbelle naan leen ndox raay mbelle ba ci kanam calme down calme down sama gars tàngoon nañ mi baax na ah. ok léegi gars yi nañ naan nañ ba pare nag ñëpp relax ok <laughs> mun nañ continuer gars yi d' accord donc comme ni ñuy waxee rek.

Nous am fulla ci suñu bop ñu am fayda ci suñu bop ñu concentré sur l'essentiel. Nous, ñu japp ni ñun dañuy pour une révolution ñu japp ni ñun dañu ñëw pour changer les donnes sommes ñëw pour changer le système un système qui se change warutul am ay secret yu y wala ay tissu de mensonges yi nek entre nit yi ak on va démystifier tout ce qui tout ce ak foo munti nekk ak kër goo munti nekk ak foo munti nekk ak kër goo munti nekk lu faux day nekk kër diine lu bon day nekk kër diine kër diine mooy suñu kër yii amul ñaari kër diine ñetti kër diine suñu kër ay kër diine la yow sa kër kër diine la ñun dañuy xeex lépp li nga xam ni mafia la que mu que mafia politico judiciaire politico maraboutique politico religieuse politico lu politico lu mu laal ak ne ak parce que nous, nous, pour changer un système un système là, nous laal là, di un système du dund ci un système du jël ne là, nous sommes mo fi gën nous sommes nés égaux ñun dañuy l'injustice dañ koy xeex waaye les inégalités sociale dañ koy xeex kii moo gën kii fum ko teg fan la ko teg yow nga am yow nga ngay ngay ngay ngay nga tudd xadi puy man sama yaay tudd tuddu faat faatu njaay yow nga xadi puy am doom ñu ne kii kii doom ji doomu soxna la man sama yaay di Fatou Ndiaye am doom ñu ne doom ji doom la loolu dañ koy xeex système fen la système u kàcc la système u injustice la système u inégalité sociale la dañ koy xeex xadi puy am doom ñu ne kii doomu soxna la ay ndaw fan la ko yàlla bind kii yaayam am ñu ne kii doom kese la dañ koy xeex dañ koy xeex te ñun dañ koy xeex dañ ciy gar sañu bakkan dañ koy xeex fii ñëpp ay soxna lañ sa yaay soxna la bul nangu kenn gën sa ndey ak jigéen bu mën a doon bul nangu mu gën sa ndey jàmbaar la sa ndey juru la sànni sa ndey dalaa toppatoo nampal la benn ndey gënu ko kii mënul am doom ñu ne kii doomu soxna la yow sanday am doom ñu ne kii doom kese la yow da koy xeex Rosa Parks dafa xeex ci bis ba Nelson Mandela dafa xeex inégalité sociale Rosa Parks dafa xeex inégalité sociale ak ñeneen ak ñeneen dañoo xeex ay inégalité sociale ba doon lu ñu war a doon man duma nangu benn ndey am doom ñu ne kii doomu soxna la man sama yaay jur ma man du doomu soxna dañuy kàcc fii ñëpp ay soxna lañ ay fen la ay kàcc la ñun dañ koy xeex ku ko xeexul man dama koy xeex kenn gënul sama ndey te ndeyu kenn juru fi doom doom doon doomu soxna man sama doon man man ma doon doomu kàcc foo ko teg fuñ ko teg ak bëri fi ay inégalité sociale Sénégal ay fen lalu ci ay kàcc ci ay naxasa xandan ci ay fowe doomu aadama yi nul supérieur à l'autre yàlla moo ko wax sauf la foi la foi en yàlla moo ko wax ñu bugg leen jàpp ñu jàpp ñenn population bi tënk leen takk leen jël ñeneen ñi furi leen ngandal leen ñu ne xaadi xa xaadi xadi njaay tëddee nañ ko ñëpp noppi Fatou Amar tëddee nañ ko ñëpp noppi Ndey Binta tëddee nañ ko ñëpp noppi ñu ne Aysata soxna Aysata tëddee nañ ko wooy sama ndoy laay lay la wooy yaay wuy sama waay yow kii moom na di <laughs> loolu loolu injustice la loolu inégalité loolu yabaate la kon kooku ah Astou Faye moom moo gën Khady Ndiaye gën Ami Pouy gën Fatou Bintou gën kii kese moom moo gën ñi ñëpp ci lan la leen gënee moom Khady Ndiaye kese gën yaa yaay yi ñu fi wax yëpp kii moo leen gën moom fu mu ko teg moom léegi fan la ko yàlla bind fan la yàlla ne kii moo gën ñii ñii ñëpp mun nañ leen wax mais kii kenn du ko wax ay waaye ndaw loolu loolu rek yab yàlla la loolu yab yàlla la dañuy taxaw temm xeex ko dañuy taxaw temm gar ci suñu bakkan bakkan laa la wax dañuy taxaw tem ndax dañuy xeex injustice dañuy xeex inégalité dañuy xeex lii moo li nga xam ne mooy ay mensonge dérisoire dañuy xeex kàcc dañuy xeex lu jaarul yoon ak fu mu mun a bàyyeekoo bu leen suufel seen bopp bu leen wàcce seen bopp bu bu leen nangu kenn gën seen ndey bu leen nangu kenn gën seen ndey yi seen ndey yi dañoo sonn dañoo liggéey dañoo jaayante dañoo jaayu jaayante ba ba jur leen nàmpal leen ba ngeen day ni ngeen day benn seen benn ndey gënu seen ndey benn jigéen gënu seen seen ndey kenn du fi jabaru soxna kenn du fi soxna di sañu ndey nag ay ndey falaa falaa bu ko kenn nangu dañ koy xeex ci la bokk dañ koy xeex ni ñu waxee yeneen jigéen yi lañuy wax jigéen kii gënu leen ci nday gënu leen ci bàyyi. kon nag sama gars yi xeex bi stay focus stay focus nekk leen ci am leen ci détermination am leen ci fulla am leen ci fayda bu leen ci arrière bu leen ci daw bu leen ci daay bu leen ci gàddaay taxaw leen temm dañuy xeex nooteel dañuy xeex fen injustice ay inégalité sociale une patrie se compose de morts qui la fondent et de vivants qui la continuent on va continuer ce combat quoi qu'il en soit contre vents et marées bon a ci kër homme amul bon lu bon mu ngi ci kër yëpp waxuma ay kër bii kër bi lu bon ci kër yëpp lu baax ci kër yëpp lu bon fu ñu ko fekk dinañ ko génne ak kër gu mun a nekk gar suñu bakkan gar ci suñu bakkan fii soxna yaa koy def sa bopp soxna du juddu soxna ju soxna nekkin la ñun ñëpp suñuy yaay ay soxna lañ ay jàmbaar lañ fàq tëdd kenn gënu leen kon nag sama gaay stay focus Macky def fi jóge par A ou par B bu leen déglu leneen bu leen bàyyi xel leneen concentrez-vous stay focus Macky daf fi jóge Macky def fi jóge ay ñoñom dañ fi jóge yàqkat yi dañ fiy jóge fen kadi dañ fiy jóge ñi yor ay ban dañ fiy injustice dañ koy inégalité sociale dañ koy xeex fen dañ koy xeex politiku sàcc politiku kàcc politiku parlo dañ koy kon nak vive la révolution vive la résistance bu ñuy buñ ci calculer dara buñ ci calculer dara nañ ci focus nañ ko xare nañ ci gar suñu bàkkan résistance résistance résistance et à bientôt incha allah de toute façon opération rëbb dëmm c'est tous les samedis on va continuer Moustapha moom suul nañ ko yóbbu nañ ko àllaaxira ñeneen dinañ ñëw Thierno Bandoom des na mi ngi fi Racine si ñi ngi ñëw ci yow

laat jóob xaj bi caga bi waa ji sëriñtu Ousmane Sonko waaye ñoom bu ñu xamoon ni seeni sëriñ yi aayuñu dinañ noppaliku coupe du monde baa ngi ni huitième de naa lañu am ñoom ñëpp ñëw ñibbisi duñu dara man balaa maa dee ñoom ñëpp koo ci gis mi ngi junni sëriñ ak juróom-ñaar ñu foog ne ñi ngi xërëmtuwaatee ñu mën nañ sëriñtu fekk dañuy kàcc xamuñu dara <laughs> xamuñu dara seen sëriñ xamuñu duul Dul sen sëriñ ni xamuñu ko fen rek sen sëriñ ayon depuis un an la la wax ñang may sànni korte que mystique karaw karaw sax metti ma karaw karaw sha allah ñom ñi daw ci serigne man ma daw ci yalla ñi wëru ci seeni serigne ak seeni xërem man ma wëru ci suñu borom subhanahu wa taala ba at jusqu'à l'instinction du soleil seeni xërem duñ mëna yalla serigne touba daf ne woon yor kënu man ma nga and kun lol la xaadimal mustafa waxon jeul len seeni keuna ma and kun te seigne Touba gañe borom keuna ya seigne Touba mo gañe borom keuna ya kunu mun keuna kun mo mun keuna kano seigne bamba nan keuna kun mo mun keuna kun mo mun xarfa fufa man ma kun jël leen këna dóor leen sànni leen bombarde leen ma tënk lépp sànni géej jox requin ñu lekk le combat continue stay focus stay focus stay focus moi je suis là avec thanks alright à bientôt incha allah one ñu fanaan ak jàmm